nga la Boun Abdallah Dionne mm-hmm. il a mené la campagne euh, législative de 2017 comme tête de mm-hmm. liste euh, en tout cas de tous les premiers ministres de Macky Sall moo ci gën yàgg il a fait cinq ans mm-hmm. et c'est sous son magistère que la ñu euh, matérialiser jëmmal lu ëpp ci plan Sénégal émergent mm -hmm. il est de Gossas euh, même s'il n'a jamais concouru pour un mandat électif là-bas euh, quelles sont ses chances Bon, moi, je ne sais pas. C'est chance en termes d'élection ou chance en termes d'investi par Macky Sall Bu ko Macky Sall investiroon est-ce que mën na nekk un candidat buy caporaliser. non euh, jàpp naa ne Macky Sall candidat bu mu investir nekk sa directeur de campagne di nga am ay atouts. mais candidat bi day am ses atouts personnels. non non justement ci loolu laa jëm si. ma ne candidat bu mu investir jàppale la di nga am ay atouts euh, di nga am war a di nga am un préjugé favorable ou bi di nga mën a compter sur un vivier électoral euh, au moins bu bu fi bu fi nekk li ci des nag yaa koy mottali sa bopp xëy na mais candidat bu mu ci mën di doon aussi soutien Macky Sall avantage la atout la mais handicap la aussi parce que tu vas être xëy na l'incarnation d'un mécontentement ou d'un bilan que les locaux peuvent juger comme négatif donc kon aussi analyse bi da nga ciy boole ñaar yëpp gis naa mu turam génn xëy na c'est quelque part un nom sorti que de nulle part parce que aussi c'est le troisième larron c'est la surprise du chef lu ne dégg naa ko fi. mais damay c'est le choix du cœur. c'est le choix du cœur peut-être waaye damay fàttaliku aussi ni bun daal bi mu fi jaaree ba mu tàqali ko Sall ba Macky Sall si premier poste premier ministre ju ñu lan moo tax mu dem xam nga bu fekkee da nga nekk premier ministre. Hmm? nga nekk ji jiite un gouvernement ñu dem ba président bi nii man ka soxlaatuma premier ministre kon yow soxlaatuma la ba damay supprimer poste bi am déet loolu moo fi xew est-ce que man sama xel nangu na logique logique na est que logique na kon yow nga nekk premier ministre ba dem nangu poste bi premier ministre ah waxuma la ma ni la man ni demal xëy na mën ngaa sax man la dem ma damaa supprimer post bi mooy kon yow amoo fi njëriñ je ma me passer d'un premier ministre ma dellusiwaat nag dina jox lu gën a koy premier ministre mais mun nañ lire affaire bi sous un autre angle. Euh, dañ génn présidentiel il paraît que président euh, capital bu mu dem mu ne leader bi yow yaay nekk premier ministre y avait six candidats qui se bousculaient. est-ce qu'il l'avait dit non non xaaral rek des candidats yu ko doon mettre la pression. alors mu utiliser John c'était la première fois ñu gis un un un d'État nga ñëw taxaw di lire la lecture di di di lire le communiqué euh, de ton li message mun nañ ko xoolee comme résilience comme nangul bu mu bu mu. nangul euh, bu mu nangul Macky Sall et puis booba tey kenn dégg ko mu xaas mais pour la petite histoire aussi Moustapha defoon na ko fi en 1983 ah ça j'ai pas ce souvenir il était allé à l'Assemblée nationale défendre la suppression du poste de premier ministre à l'initiative du président Abdou euh, donc c'était aussi une euh, xewoon na fi boo mais li nga wax man xel mën na ko nangu xëy na ni xëy na dafa nangul président lépp xam nga nga ko déggee noonu waaye daal man li may fàttaliku daal moo di bu dee daal man dama laa jox cër. yow ça intrigue non non mais non non bu dee daal dama laa jox cër. dem ba xëy na cër bi soxlaatuma ne lii ba supprimer ko parce que bu dee par exemple daf ko nanguloon supprimer poste bi muy del si post bi xëy na kon bu dee il en était satisfait est-ce que lu ko tax delloo si waatu ko kon xam nga bu dee sa analyse rek laa topp de sa logique laa topp. nekk na premier ministre supprimer na poste premier ministre bi kon soxlaatuma poste premier mu demaat ba ci yàgg mu del si poste premier ministre bu dee kay ce premier ministre là nangul na ko il en était totalement satisfait peut-être que il était logique mu ne ko del si waat a jëlaat sa place en tout cas c'est pas c'est pas ce qu'il fait alors non Aly Ngouille